ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen bii di Fekke TV ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen comme ni ñu leen koy defalee di leen toppal ci làmb di seet ci ndaanaan yi di seet ci xale yoo xam te ni yaakaar naa ne ci làmb la ñu nekk di ci bay jéego rawatina tey jëmm ji nga xam ne moom la ñu dalal nee na leen naam xale la boo xam te ni bi mu duggee ci làmb yàggut waaye fexee na ba marqué ci empreinte am ci jom ci fulla ci fayda ci détermination bi nga xam ne moom moo nekk ci moom dafay bàyyi nag mu nuyoog mbokk yi ndax ba naar naar yaa ngi bokk yi tey ki ma seet si nag xale la boo xam ni mu ngi ci làmb Weuz nuyu nañ Makan ñoo ngi lay ziar ginnaaw baatu auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax di ziar bu baax a baax fi nga xamante ni foofu lañ jokk muy Tiwaawan ñaanal xalifa général bi sëñ Mbaye si yàlla na yàlla. yàggal ko fi may ko wér bu wér a wér ak bépp xalifa ak waa axlu baytu rasul yëpp ñi nga xamante ni dañ fay teewal lislaam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di nuyu waa yaraax di nuyu waa ngaay mexe xam nga di nuyu ñëpp képp koo xamante ni day bëggee wës jàmbaar rek wës jàmbaar moo lay ziar bu baax a baax. lan moo wës jàmbaar wës jàmbaar ko indi. waaw wës jàmbaar mooy comme le nom indique rek jàmbaar doonoon xale boo xamante ni daanaka. bi may xale lan ma ko tudd lan ma ko tuddee boobu duggaguma ci làmb sax xamaguma luy làmb xëy na si booy ma doon àndal samay morom yi ma doon àndal danoo gisoon ma gën seen njaxlaf gën see doon jàmbaar sama grand ko tuddee ma jàmbaar wës jàmbaar booy bi dafa jàmbaare ci lépp lu ñuy def rek dama ciy wane ak ba noonu laa ñëwee ba tur ba jëlaale tur bi dugalaale ko ci làmb ji muy wës jàmbaar. lan moo indi wës jàmbaar ci làmb lu ko indi lu tax wës si bëri. lan moo indi Weuz Diambar ci làmb ak lu ko dugal ci làmb. waaw Weuz Diambar li ko dugal ci làmb lu bizarre la parce que aw ma mbokk buy bëre aw ma maam buy bëre aw ma buy bëre awma kenn koo xamante ne nii mu ngi bëre aw may àndandoo mbër aw may presque dëkkandoo mbër élève laa woon séeréer si daan nekk ma dëkk ci wetu géej gi séeréer si seen écrit yi nekk foofu noonu su écrit ñoom musaandooy nekk si école bi ma doon jàngee. suma musaana wàcc ñoom suñuy contact damay jël sama saak sama élèves yëpp ñibbi man du ma ñibbi fa laay toog di seetaan contact di bërantu foofu noonu noonu laa def bu virus bi dugg ma ma commencé di bërantu ay mbabattu koñ di wàcc si koñ yi di bëre ji ay HLM di dem Tëngéej ji bëre ji mbaaw fii yëpp Dakar yëpp bëri naa fa ay combat nommé yu bëree bëree bari noonu laa def ba affaire yi xaw a yàq sama jàng ma concentré wuñ dugg ci arène bi waaw. xam ne moom mi mbër la war na commencé jot mu dugg ci arène bi kan la ko wës xam. waaw dafa am benn mbapat boo xamante ne nii boobu ñoom kii ñoo ko tëggoon ñoom ñoom Mamadou Mbaye doomu Bekaay mbay ñoo ko tëggoon Grand Dakar <laughs> maak sama adversaire ñu ñu ñu ñëw boobu jotu ñoo bëre sax mais dama xam ni jour boobu ba ma simee ko adversaire bi daa yolee ko nank jël ay cumukaayam dem ñibbi. maam daa daw. <laughs> ndax état. waaw boobu dama ñëw ma xam ne man mat naa mbër. kon li ci des mooy ay quelques réglages ñu nekk si boobu dañoo ñëw ñu def signature def yëpp boobu ñoom petit gris raqu raqu raqu moo raqu Modou Mbaye la ñoom ñoo ko trophée bi mu ngi sama gaale ba léegi ñu def ay signature lépp gars yi yëpp ñëw ñëw ba stade ñu ñëw ba stade ñu ñëw ba lii bi ba ci terrain fi làmb ji war a amee ñu simeeku ñu def grand combat bi maa moom war a bëre rek saa waay tonne na ci mu kaayam ak lépp ba jaar si ginnaaw baas bi def ñu fi loolu du a fàtte quoi après comme man maay taxaw ak sama morom ci digg géew ñemewul jaamaarloo ak man kon am na lu nekk ci man lu loo xamante ni yàlla feeñalu ko waaw ci laa commencé ñeme dem di bëri ji nag waaw. mais li may gën a jaaxal mooy Weuz jàmbaar mu bëri arène Weuz Diambar sa combat débuté def fulla Weuz def fayda pare nga nekkoon ci ay dynamique yu bari Weuz boobu. waaw parce que làmb man ba ni may bëree mbapat amul kenn ku mën a taxaw nii Weuz Diambar mos naa ko daan mbapat. dabat bu ma bu ma bu ma dem rek yàlla dafa dogal ni ku ma dëggal combat yàlla dafa dogal ni dama cee dama cee génn ak ndam ma dugaale noonu ndam laa dugaale ci làmb ñëw ci làmb tegle ay victoire sept combat sept victoire coow li commencé wës jàmbaar wës jàmbaar waaw affaire bi neexoon trop xam nga neexoon trop ñu amoon benn engouement amoon benn staff bu garaaw boo xamante nii nit ñi doon ñu nun séentu foo xamante ni sax daanaka fii ñu nekk nii waroon nañ ko dépassé waaw parce que làmb ñëwoon nañ ci fekk suñu ay morom ñoo xamante ne nii bi ñuy jël seen i avance sax dañ naan Weuz Diambar lu tax mu jël avance bi te boobu jëmm ju toll nii ñuy jox ay adversaires yoo xamante ne ñoo ñu xawoon ëpp ñooñu li mais yàlla demee rek dañuy dem ñun ay seconde lan man sama combat yëpp sama set combat yi nga xaman ne dama ko bëree teg la ko yëpp doon victoire suñu ko boole woon matul deux minutes. man seetaan naa la nga daan mbay mbaytin euh, mi ci ci jël bu gaaw. waaw Mbaye Tine de daanaka jël bi ma ko daan kenn ba ma ko daanee ba jël boobu ba léegi euh, chute boobu kenn gisaatu ko ci làmb waaw dafa ñëw daw ñëw ma daw sol ko jàpp ngemb biir gi ngemb biir def tour tuur ko jëlee ko fi ma ko jële woon laa ko indiwaat jël boobu. waaw Serigne ko franc. waaw waaw Serigne Ndiaye de waaw gis naa Serigne Ndiaye de daan ko franc mais bee moo gën a spectacle quoi ndax bee dama dama ko jàpp jug ak moom daal laal benn benn rotation la rotation bu garaaw. waaw mais Serigne Ndiaye dama gis moom dafa fàq sawaay mu ñëw mooy mais kii dama ko tonni boobu dama ko tonni qualité yooyu wës doon bëri spectacle yooyu wës doon bëri wës dem ba ci biir kenn xamul lan la ñàkk staff la ñàkk déggoo la yëg succès bi la lan la non du yëg succès xam na yàlla moo ñu doon mbay te defaloonu ñu ko loo xamante ni moo ñu doon yëkkati ay ndam di ko teg suñu loxo dañ doon entraîné rek comme am jaam dem sabablu yàlla jël ndam te ko suñu loxo ñu ñëw ñibbi suñu adversaire dem jooy waaw xëy na ñu demoon ba naagu ci làmb naagu si suñu bëre naagu suñu doole dem ba xam ne dañuy ñëw su ma daan ñëw di bëri si dama naan tey nii lay daanee même su ma gisee beneen clé dama naan duma def loolu li ma indi la li spectacle laay indi tey làmb des fois day ñëw ni la man doxewu ma nii làmb xamal la boppam làmb ni la nii ngay bëgg a doxalee du noonu làmb des fois da ngay ñëw defut wuyoo turam da ngay ñëw làmbatu rek ba daj mais dama doon ñëw làmb daj man non ba bi ma daj bëgguma bii beneen laa bii laa bëgg di taamu jël bu rafet wala jël bu lii soo xoolee sama combat ak alliance bi tam sax loolu laa ko ñàkkee parce que maa ngi doon xool man non kii moom top 5 laa koy yóbbu xëy na loolu la fa laa nekk di di di di tente ay créé. yaakaar naa ne boobu mooy sa première défaite de. non Fils de Balla maag Fils de Balla grand combat jag ko tëggoon boobu moom presque Fils de Balla deful dara man maa bëre maa daan sax tam moo cokkaas loolu ko gauche gauche gauche mu siggi may daw di ko ramaté ji mu mu xaw a mu mu rasu mu rëpp quatre appui. waaw maanaam pour ñu daan wóos jàmbaar ba mu ne gal bit man dégg naa ci ñu bari ñu naan wóos dafa joteeg sëriñam dafa am sëriñ bu mu joteel ñu naan dafa nii ñi naan dafa laa nga leeral nit ñi. non ñun amul benn maara boo xam ne dañu joteeg yow wala joteeg lii ndax ñun kun jëflante ay doomu góor lan luñ ku ñu jëflantee rek lépp lu jëf jëflanteeg yow dañ koy mat amul benn maara wala benn sëriñ bu mën a taxaw ni sëriñ wala ni wës daf maa tooñ wala daf maa lii wala daf maa amee lii wala daf maa non te man yàlla mooy maye te yàlla mooy xañ yàlla mi ma doon may moom laa gëm yenn yeneen bis yi ma ñëw mu xañ ma ko comprendre nga kon nag du ma ñëw naan ay sëriñ bee ma daan wala nit kii moo ma daan wala kii moo ma sànni biteel bii moo tax moo ma sang lii moo ma jox téere bi pour ma daan non dama doon ñëw di am ñëw bëre yàlla may ma ndam yàlla mi la doon may des fois moo lay xañ ñun ay doomu jullit lañ te gëm nañ gëm nañ ni yàlla mooy maye mooy xañe kese bi nekkoon ci ay dynamique de victoire daa mel ni ñi nga doon gis ak ñi nga doon gis yéen leen di gis ba léegi bi ngay nekk ci sept combat victoire waaw parce que ñun làmb am na ñoo xamante ne nii làmb boolewuñu ñuy àndal ñëpp ay dëkkandoo lan ñii samay mag lan ay frère lan ñii samay mag lan ñii samay rakk lan ñii samay nijaay lan ñii samay papa lan comprendre nga man ñooñu ñoo may gunge ci làmb sama supporter heure ma toogee ci stade mën naa la limal ne la diw kii nii la tudd kii nii la tudd kii nii la tudd kon du question làmb moo ma booleeg ñoom du question victoire lan ma toppee wala defet moo tax heure bu may ñëw waa Yaraax yëpp dañuy ñëw dañuy gis ne Weuz Diambar dafa mobiliser waaye Yaraax ñëpp dañuy ñëw di ndax toppeewu ñu ma làmb quoi en tant que dëkkandoo ak moroomam bu xewle bésam ñoom ñëpp ñu jug war ko dem jàppale comme muy comme kenn ku si xewle ngénte rek ñëpp ñëw taxaw ko man la wu ma ngénte làmb laa xewle dañuy bàyyi leen doon def yëpp ñëw ñëw ñëw fekk si ma si comprendre nga xëy na képp ku écarter sa bopp wala lii xëy na da ma toppee woon ci ndam ndax ndam nit ki loo koy toppee soo demee ba gisoo ko da ngay arrière te ñun doxewuñu noonu ñun lu ñuy doxee dañuy ànd ak lu ñuy ànd ak nit mooy dëgg muy neex dañuy ànd ak yow muy naqari dañuy ànd ak dañuy dañuy ànd ak moom ndax ñun noonu noonu noonu la ñu yaree ay taalibe Cheikh lan am na yu bari yoo xamante ne ay détails yu bari yoo xamante ne yarewuñu ko ñun dañ yar ci ci ci ci lislaam yar ñu ci siraatal mustaqim yar ñu ci yar ak teggin ak koo xamante nii soo amee respect nga jox ku la mag nga jox ko respect ku la féete ndaw nga jox ko cëru ndaw ku la féete kilifa nga jox ko cëru kilifa ñun noonu la di ànd ak nit moo tax c'est rare nga gis Weuz Diambar ànd ak nit mu tàqali koog moom ndax ngor laay àndee ak nit waaw. li ndax Weuz fu ko gis forme bi day baax Weuz si wàllu entraînement. waaw wareef la wareef la boo xamante ni mënuñoo teggeeku tànk baa wu ñu làmb ñu ngay xëyee di dem sa bureau ñun heure bu ñu xëyee dañuy gàddu suñu saak dem xool lan mooy yokk suñu doole ni élève bi di xëyee di yor di yor saagam dem école pour yokk expérience am ñun heure bu ñu xëyee ñun lu yokk suñu doole rek la ñuy wër parce que ñun ñoo ko choisir ba ñu koy choisir tamit kenn sexalu ñu lem kon dañuy lim làmb li mu laaj dañ koy def par force la dañ ko war a def muy entraînement mooy première gàllaaju làmb parce que damay seetlu heure boo demee ci maara comprendre nga maara yow soo demee ci maara yi ñu gi xool la yow gisuñu si yow état sax duñ la sawar a ñaanal kon première gàllaaju mbër entraînement la soo entraîné ba dëgër contact ba dëgër mën li ngay def mën li ngay dem ñaanu ji say mbokk ñëw puus la euh, la ca des moom ca loxo yàlla la nekk da nga koy bàyyi yàlla moom miy séddale xool sa bool lu mu ciy teg rek nga ànd ak moom dem waaw. nga jëm si combat bu doy waar ndax ku ko wax tamit Maguette Seck di ndaanaan nekk xale école de Balla ñu gis mu bëreeg ay naataango yu bare bare bari nga jël ko sa diggante ak Maguette Seck lan moo la ko jël waaw xëy na ñun làmb daf ñu bàyyi xel te làmb daf ñuy séntu fu sore sore sore sori moo tax euh, mën naa ne jafe-jafe bi nga xamante ni yenn mbër yi dañ koo am yàlla dafa dogal ne ñun amuñu ko muy problème combat ñun ñi nga xamante ni mbër yi ñun bokkuñu ci mbër yi nga xamante ni ñoom ñooy daw ci envers les promoteurs ñun promoteurs pour tëggal ñu làmb amateurs yi ñoo soxla suñu làmb ndax heure bu ñu duggee ci làmb dem di seetaani sax suñu bëriwul suñu demee seetaan dañuy gis amateurs yi a nii parce que bés li muy laaj da nga koy def muy amateur lu mu bëgg mooy ñu xam ne kii li mu nekk caaxaanewu ko soo sumee ko dañuy gis état dañuy xam ne kii kaful foowul réewul bi nit ñi nelaw mu ñu entraîné ndax état ay milliards jënd ko xaalis jënd ko kenn du ko kenn du bëggu nekkul da nga koy bëgg a ko li naan euh, rangoñ ak ñaq fu muy jógee dafa garaaw caaxaan génnewu ko te ñun li ñu nekk nii ñun foowuñu si ku ñu fekk fu ñuy entraîné nga xam ni kii kaful foowul reewul ci lii muy nekk ndax suñu métier la moo tax heure bu ñu bëree heure bu ñëwee stade ñëpp dañ naan gongo moo tax suñu combat heure pas dañ naan non booy bi nañ ko joxaat sansam yàlla dogal ñu jox ñu benn combat boo xamante ni muy Maguette Seck Boy Niang 2 muy champion bu mag mu feneen na fi booy bari bëri bëri ay champion mu mag ñu bi ñu ko proposé ñu ni pour pourquoi pas dañ koy jël comprendre nga ndax ñun làmb lan am luñ toog bëriwuñu pertement lay doon si ñun comprendre nga te mbër su bëriwul nekkatul mbër te li ñuy wax naan baykat du gëj tool moo tax combat bi bi ñu ko proposé dañ koy jël ñëw bëre waaw ñu xam ni combat bii nii combat bu mu mën a yóbbuwaat fu sori la. te dafa am loo xamante ni day neloo ci man te yaakaar naa ni boo ñaar 2 moo ko mën a yee. ba xam nga ne juum waru la ci. ndax Sénégal yëpp ñu ngi lay bàyyi xel si combat ak sekk xam nañ ba xam ro ro Rose Diambar waaw euh, li naan combat bii nii mu naan àpp bi dafa jot xëy na li ñuy séntu yëpp ci Rose Diambar combat bii nii da ngeen koy gis muy champion bi nga xamante nii dañ koy jiiñ dañ koy jiiñ dañ koy jiiñ lii bi dañ koy jiiñ mbër mi. champion bi nga xam dañ koy jiñ mbër mi man xam naa ni combat bii laa koy wane te capacité yi nekk ci man lépp lu mu doon xaar ci ci ci mbër mi rek lu ñuy xaar ci wës jàmbaar le douze incha allahu rabbi dinañ ko gis te combat bi juum waruma ci euh, fakasal waruma ci defet waruma ci ndam rek moom lan may laaj te ndam rek laa ci war a am te yàlla na ma ko yàlla may incha allahu rabbi ñaanal di wax ñëpp nan ma ñaanal yàlla defal mu sutura musal ma si cat musal ma si cat ak làmmiñ bët bu ñaaw ba jour ba ma ñëw doon wës jàmbaar jàkkaarloog booy ñaade. wës nan la war a bëree ndax ñu bari ne nañ wës ñàkk tey daf koy dalal ndax action yo des fois nga daan bët wala dañ naan yaa daan wala lan moo war a. du xam nga ko. waaw la manqué woon. des fois am na loo xamante lu bari ñun xam na ni moo ñu doon yaaxal muy entraîné ba yëg sa bopp. dangay jàpp ne yow ku taxaw sa kanam waroo taxawal ak man damay am complexe sax dama doon bëri damay am complexe sax taxaw nit une minute wala deux minutes te daanu ma ko même su may contact sax man xaw ma taxaw su may contact su ma su ma taxawaay ak nit benn une minute sax dama naan man damaa ñàkk fay li may li lépp war naa mën a taxaw ak kii te laamu doxewul noonu. des fois làmb day laaj tactique calcul ndax kan na nan laa ko war a jaar ba daan ko lii nii xëy na loolu lépp ñu nekkoonu suñu bopp mais ins bii nii matière nañ ci côté boobu noonu te yàlla baax na le douze incha allahu rabi dinañ xam ni Weuz Diambar niw lug ñëw na Weuz jàmbaar bu mature Weuz jàmbaar bu comprendre làmb léegi ñëw na mais Weuz ba tey am na ci combat boo xam te ni événement bi en tant que mbër duñ la seet te duñ la ko laaj muy ko événement bu suba bi le 6 novembre ci diggante Papa Sow ak Siteu en tant que lutteur nga toog sa kër seetaan ñaari mbër yi ku ci nekk sa état de forme noo leen gisee ñoom ñaar. waaw macha allah ñoom ñaar ñëpp wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk li nga yaakaar def nga ko li nga yaakaar ne moo la mën a may ndam dem nga na ko def ko man su may dégg ñu naan Siteu nekkul ci état wala lii xaa pour man Siteu yebul ay supporters am wala yebul nit ñi ban jox ko avance plus de soixante millions muy tëdd nelaw te mu doon m te benn liggéey boo xamante ne nii mën na laa jox soixante millions lu dul làmb kon yaakaar naa ne Siteu warul foo xëy na état bi nu bëgg a gis si moom gisuñu ko waaw mais xëy na adversaire bi muy dajal moo tax yokkul maas wala yokkul wi yenu doole peut-être mën na doon loolu mais jàpp naa ni moom li mu yaakaar ni war na ko mën a may ndam nekk na ci Papa Sow aussi gis nañ ko moom athlète la moom bi mu dalee bëre ba léegi heure bu simee da ngay xam ni kii nii li muy def da koo bëgg te da si jëm da si demee jom fulla ak fayda taay bu toll ni moom. des làmb ji ba léegi di ko ñàkkanteeg poids lourd yi nga xam ni kii jom lay demee waaw moom tamit gis nañ ci moom état boo xamante yi nii booy ndaw yi sax yoruñu état boobu noonu da koy ñàkkanteeg ñoom mu doon combat boo xamante yi nii euh, foo teg sa xaalis perdo Siteu su daanee du bett kenn Papa su daanee du bett kenn waaye nan la koy daanee mooy question bi. nan la koy daane ci ñoom ñaar ci kan. waaw ci Papa Sow nan la koy daane ñii nee na Papa Sow lenn la am ci combat bi xeexloo Siteu juumloo ko daw jàpp tànk bi muy wax mu dem mu jaar si li dem falan yi dem wari ko ndomba ba tey Siteu mën na am lenn mu mu saxal ko tànk bi muy ñëw mu fàq ko mu rëb loolu lépp mën na mën na mën na nekk ndax taayu taayu Siteu Siteu dafa njool te su fekkee njool buy ràcc la njool buy ràcc moom ndaama suy daw di ko song di ko song mën nga song ba mun nga song ba jeexal ba Papa jeexal mu fàq mu suruxal ko loolu lépp mën na cee am te xeex bi tamit avantage su xeex bi tamit Siteu su fekkee mooy gën a arrangé su fekkee danoo taxaw di ko jamante waaw comme na na bañ Papa Sow ñuux ko ne Papa su ko ñuuxee mu ngi gauche gauche droite boo xamante ne ni su ko dalee mën na ko mën na ko mën na yàq combat am quoi. waaw comme combat bi daal li nga wax combat rapproché la ci Papa Sow. waaw combat rapproché si Papa waaw su bëggee am di ko xool nag. tàllal ko droite bi comme moom gauche comme moom droite droite lay teg mu tàllal ko droite bi. pour Papa Sow bañ ko jege si. xalaat nga dóor mu daanu am ci combat boobu. waaw mën na nekk dóor mu moom kenn ku si nekk mën nga koo def sa bopp sa morom ndax coup perdu la rek mën nañ xeex xeex bi jaxasoo nga encaissé coup mu wàcc waaw ndax dóor mu daanu moom suñ koy xool xëy na Siteu mën na dóor Papa mu daanu waaw ci la gën a jekk quoi loolu moo gën a jekk Papa dugg ci garde garde Siteu dóor ko mu daanu. lan ngay yóbbante Maguette Seck. waaw li ma koy wax mooy di ko jox respect waaw di ko di ko wax na na xam ni am na xale bu saf am na ko bëgg làmb ku ko gën a bëgg combat bi kooku la am te combat bi man dama ko jël sama bopp amee bàyyi wax ju bari ji sa bëgguma di ko si def entraîné lelu waaw di di si ànd ak sama benn kilifa bu baax a baax ñoonu naa bañ a tur bi sax ndax làmb dafa garaaw waaw ñoo ngi ànd ak moom xel dal na ko ci ci yu bari yoo xamante ne yaakaaroon naan dama ko manqué xëy na ñu ngi ciy jëflante bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may taw feex waaw di di nuyu bu baax a baax a baax ñi nga xamante ne nii dañuy bégee Weuz jàmbaar te xamuñu ko wala Weuz jàmbaar xamu leen ñu koy gis envers les télé Weuz jàmbaar mu ngi leen di ziar bu baax a baax baax di nuyu képp koo xamante ni da ngay bégee làmb muy amateur promoteur xam nga rapporteur yi cameraman yi ñëpp Weuz Diambar mu ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu ki nga xamante ne nii kenn la si man faa ma tudd ko Baye Samba Ndour Touba was jàmbaar moo ko dénk boppam moom mu teel ma sama bopp. mooy Samba Ndour Samba Ndour moom mu teel ma boppam ba ma xam ne man daf ma teel boppam. combat bi nag combat am la te nee na moom moo ko jëlal boppam. combat am la nee na nekkul nekkatu sama combat combat am waaw di ko Baye Samba Samba nduur komba bi sa combat la man maa la ko sas waaw di nuyu ñi nga xamante ni. samay gars yi la xam ne dañuy nekk sama waa staff ñoom Saataala Mbaye Cheikh Diouf Sidi Diagne Daouda Diop xam nga di nuyu Boga suñ président écrit mbër ya fa nekk ñoom Baara Ablaye Bébé Ama Africa Fall Yaraax moom Moussa Ndoye Caatu Yaraax ñoom ñëpp ñoo ngi leen ziar di nuyu ñi nga xamante nii ñun ñooy ànd ñoom Boy Naar bu Boy Naar ñoo koy ziar bu baax a baax a baax. Boy Naar sa forom waaw champion boobu noonu mooy suñu ginnaaw di nuyu Aliou Thiam mooy laa ñoom ma numéro 2 borom Kaolack di nuyu Dev suñu rappeur bi Dev Fresh borom Cité borom Dalifor ñu ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu ñu grand laay borom Turki moom moo moo moo ñu gérer reer chaque jour. supp bu bari lay jënd may jóge entraînement ñëw fekk fa supp bi ñëw dóor ko. di nuyu suñ benn DG le jeune transitaire muy euh, muy Younous ñu ngi koy ziar borom Maris ñu ngi koy nuyu bu baax waaw di nuyu Seyna karamallah ñoon lay ziar bu baax waaw di nuyu sam benn DG ñi nga xamante dafa nekk Touba muy papa papa ñoo ngi lay maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax waaw le jeune actionnaire ñu ngi lay ziar rendez-vous au sommet di nuyu ñëpp di nuy waa Ngaay Mexe ak lu ko wër waa Ngaay Mexe sama doom bàyyi fa nekk ñoom Pablo ñoom Vieux Cité Talla Baye Fall xam nga ñoom Jakarta borom dawalkatu Jakarta yi fa nekk ñëpp. xam nga waa kalandoo yi ñoom Ibra Gueye Ahmed Sall ñoom ñëpp ñoo ngi leen ziar bu baax a baax képp ku dëkk Ngaye Mekhe rek Weuz Diambar ñëw na ba si yow jox la loxo ziar la di bëggee ñëpp jërë mbokk yi gis ngeen ko yaakaar naa ne xale bi ñu dajal loon miin ngeen ko lool di Weuz Diambar nekk champion nekk fi nga xam ne moom mooy yaraax nekk champion gis ngeen ko ci ay kombaam wax na leen permanence am wax leen fi nga xam ne moom la jaar ci wàllu làmb gis ngeen ko ndaanaan la na ko gars yi bàyyi xel mu am nag combat le 12 moom ak Maguette Seck bu école de lutte Balla jëre ngeen jëf mbokk yi comme ni ñu leen koy toppale ci làmb jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf